fii nag bu ma fi taxawee gis cette jeunesse déterminée cette jeunesse engagée cette jeunesse qui a envie de nous accompagner bien évidemment man bi ma njëkkee biñ ma tànnee ba tey la ma wax mooy je serai le président de l'emploi des jeunes fan yi passé ñëw naa fi inauguré château d'eau bi nga xam ni moo fi andi ndox mu neex muy château bi njëkk mais loolu nuyoo bi la ndoxu tuuba ak ndoxu Mbacké dina jóge Lac de ñëw ba fi ku nekk ndakaaru maa nga nekk feneen ndox mi ngay am dinañ ko am fi ci tuuba te du yàgg loolu mooy engagement bi may njëkk a jël ci département de Mbacké ndox mi dinañ ko régler définitivement ndax xam naa ni ndox mi yittey sëñ Muntaxa la te man lu yitteem rek du ne priorité super priorité la ndax sëñ Muntaxa askan bi rek la am njabootu sëñ Touba rek la am kon dañ ko ciy jàppale xëyu ndaw ñi moom wax dëgg lu ñu mënti def te li ci war defuñu ko yokk ko gën ko baral seddale ko séddale bu mucc ayib fexe ba Mbàkke gis ci boppam ak feneen loolu moom mënuñu ko bañ a def ndax sama engagement mooy ci juróomi at yi créer un million d'emplois. bu ñu ko séddalee nag fi nit ñi ëppee fi nit ñi ëppee kon fii lay lim bi di ëppee ndax loolu mooy li jaadu surtout que département bu mel ni Mbacké dafa laaj rattrapage su ma ñëwee ba fii waxuma la route Taïf saajo suma ma ñëwee ba fii waxuma ko population yi dëkk foofu seen bopp dina ubbu projet boobu ni ma ko waxee woon fii ci fan yi passé bi ma fi ñëwee dinañ ko tàmbali dinañ ko accélérer te dina pare ci biir 2024 maa ngi leen di sant di leen gërëm sëñ moodu Baara fàttewuma la woon xarit nga kóllëre nga ku ma gis ak ku ma gisul yéen ñëpp yéen ñëpp laa wax yéen ñëpp yéen ñëpp laa wax yéen a ngi biir xol jërëjëf jërëjëf jërëjëf